asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre ci wasaare news ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii nag ci technopole mu am action bu triste bu fi am ci bi ñuy romb rek euh, benn nit koo xamante ne nii ci biir ndox mi moom lañ ko retrouvé décédé ci biir d'après nag témoignage yi nga xam ne am nañu ko am na ci ñoo xamante ne nii euh, nee nañ gis nañ ko muy dox di dugg ci biir donc bi muy dox di dem moom mu ngi ko doon def ci ay euh, propre graine. Euh, après ci la ñu gis mu daanu ñu ñëw fekk ne yàlla moom na ko actuellement nag sapeur pompier yi ñoom ñoo nekk noonu ngeen di gis euh, tiim ko xëy na dañuy xaar euh, pour police mën a ñëw def constat bi ñu mën ko yóbbu en tout cas fi mu nii oto sapeur baa ngi fi sapeur pompier ñu ngi noonu ci biir keneen kee ñu gis nag mu yor bant bi dafa mel ni moom. fait partie des des des témoins oculaires euh, mais daal li am ba des mooy mbir mi noonu la demee mu ngi noonu tëdd mooy néew bi nga xam ne fekk nañ ko fii ci technopole mu nekk affaire bu triste nag affaire bu yéeme actuellement amaguñ ay explication ci ana lan moom moo sabab euh, ñëwam fii ana lan moom moo yóbbu ba kanam loolu yëpp explication yooyu peut-être ci kanam. incha allah bu ñu jegee rek euh, élément euh, genre euh, élément sapeur pompier yi peut-être dinañu ci édifier mais en tout daal fi mu toll nii ñu ngi technopole gis ngeen fii technopole bi la tali moom moo jëm croisement Cambérène ci ginnaaw la autoroute bi nekk actuellement ñu ngi fii di xool ba xam ndax am yeneen information supplémentaire pour mën nañ ko dëgtal moom la ñuy sennale corps bi la ñuy ak euh, élément sapeur pompier yi mais pour ne l'instant mënaguñ ci am lenn lu leer parce que yenn témoins oculaires yi sax mën naa ne ñoom seen i seen xam-xam bariwu ci parce que seen rek moom lañ ci am ñi euh, ñu mën a édifier daal mooy actuellement élément sapeur pompier yi nekk sur le terrain euh, ñoom ñoo mën a édifier nit ñi expliquer lan moo xew réellement ba xam ndax euh, kii da doon xaru wala euh, mort naturel la wala dafa am lu lu ko lu ko lu ko lu ko arrivé si biir ndox mi wala déet en tout cas information yooyu yëpp dañu ñu war a cueillir la ci kanam euh, ci kaw tey bu commandant bi ñëwee dañu def constat bi ba xam exactement ana lan moo xew mais daal li ñu mën a jàpp mooy ci technopole bi la xewee te actuellement lii ngeen di seen yëpp ndox la profondeur bi aussi mënuñu koo xayma ndax zone la boo xamante ne nii nii lay mel à chaque fois muy nawet di noor euh, chaque instant nday am ndox xamuñu profondeur bi nan la ton moo waral du ñu mën a xam exactement ñun ci suñuy ci suñu xalaat bu gàtt euh, ana lan moom moo waral loolu bariwut nag lu mu fiy am genre yu mel nii bariwut lu mu fiy am en général dañu doon euh, gis fii ay ay agression mm. dañ fi doon gis ay xeeti fi yëpp mais ci li ma jot a jàpp euh, déggaguñ fi benn yoon boo xamante ne nii am na ay corps sans vie yu ñu fi retrouvé euh, déggaguma ko mais pour l'instant moom euh, li ni mel moom moo commencé di produit fii nii ci technopole parce que am na benn corps sans vie boo xam ne élément sapeur pompier yi fekk nañ ko fi nii donc loolu nag moom lañ bëgg a xool rek ba xam lan moo ko waral ñenn ñi nag comme. jikkoy sénégalais des fois bu mbir amee am na ci ñoo xam ne nii dañ ci am xam-xam euh, mais du nekk ay information yoo xamante ni ay information yu fiable donc ñii nee nañ mu ngi woon ak téléphone portable am ñii nee nañ bi muy dem aussi ñu ngi koy séen donc euh, loolu rek day dàq thèse wu euh, dañoo dañoo ñëw retrouver fi benn corps sans vie donc kooku bi mu doon bi mu doon bi mu doon dugg ci biir technopole bi mën nañ ne dugg na sain et sof ba loo xam ne am na loolu aussi lu ci jara lu ci jara sóoraale la xamuñu ndax nit ku am problème mu xel la wala nit ku nit ku normal wala eh, yan jafe-jafe la am ba mën a atterrir si fii en tout cas loolu yëpp daal eh, ay interrogation la yoo xamante ne nii fu ñu toll nii ñun eh, am nañu ko ci suñu bopp comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ñu mën a édifier moom mooy éléments yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur place. mais daal bu ñu mënee jàpp ci xibaar loolu moom moo xew tey fii ci Technopole euh, nit koo xam ne gis nañ ko euh, bi muy dugg ba euh, daanu ci biir élément sappo yi ñëw fekk mu ñàkk bakkanam. mais ñëpp xool la. Ah, waaw mais xam nga aussi. Euh, parfois nit ki nit ki nit ki nit ki buy buy buy agir euh, doo comprendre li ci ëpp il faut nga mu mu agir ba pare moom ngay soog xam ne ah, nit ki lii la doon def ndax zone bi man des fois dama fiy gis sax ñuy ñuy napp dama koy gis parfois ñoo xam ne ni yor seen gaalu loocoo di napp ni peut-être boo séenee nit muy dugg ci ndox mi mën nga am mën nga am yaakaar boobu xalaat ne euh, nit kuy napp la te aussi jardinier yi ñu ngi fii nii fii boo xoolee yëpp zone la boo xamante ni fi la jardinier yi nekk mën nga koo séen euh, mu sori la nga jàpp ni tey benn jardinier moo am lu muy lijjanti ci biir wala déet balaa ngaa xam carrément li xew rek mën naa fekk si trop tard peut-être loolu moom moom mën naa nekk ndax bu fekkee ne xaru la en général ñi nga xam ne nii dañuy xaru di takk seen bopp nit bu la séenee automatiquement day xam ne yow da nga xaru loolu day am mais genre yu mel nii nag moom dafa xaw a dafa xaw a complexe dafa xaw a compliqué ba nit ki il faut mu def li muy def bu fekkee ne ci coobare boppam la bu nekkul ci coobare boppam aussi il faut am lu ko arrivé pour ñu soog a xam réellement que lii nii moom moo am en tout cas comme ni ñu leen ko waxee rek yéen bokk internet yi. bu fekkee dafa yoroon téléphone téléphone boobu moom ko mu fonctionné ci. Euh, bu fekkee ne dafa dafa dafa dafa dafa dugg ci ndox mi pour mu fonctionner dina xaw a dina xaw a jafe taal ko moom du yomb. mais ak euh, puce bi carte carte euh, SIM bi nekk ci téléphone bi mën nañoo identifier waaji kan la euh, fan la dëkk ak moom moom mooy kan donc loolu ay éléments la yoo xamante ni ñoom mën nañ koo am pour mën a identifier réellement waa ji nii moom mooy kan bu fekkee aussi dafa yor ay pièces am dina faciliter la tâche ñi nga xam ne ñoom nekk sur place pour mën a mën a enquêtes yi loolu yëpp ay éléments la yoo xamante ni ñoom buñ ko amee day yombal liggéey bi pour ñu xam identifier ko xam ne corps bi ñu retrouvé fii diw la bërëb sàngam la dëkk diw ak diw ñooy ay mbokkam pour que le plus rapidement possible ay mbokkam mën see jot mën ko denc jébal ko seen borom allahumma amin allahumma amin bañ taxaw mais mais mais abu abu abu euh, donc dégg nga kee li muy wax beneen information lay wax yàlla ko yàlla yëkkati donc euh, moom aussi am na ci ñeneen ñoo xam ne. day wane waa ji des na bakkan ba léegi. waaw jàpp nañ ne décédé gul. waaw am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne waa ji ñàkkagul bakkanam donc loolu aussi day nuancé rek ñun suñuy propos euh, li ñu doon xalaat mooy nit ku ñàkk bakkanam la mais comme que aussi. yenn téemon yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi waxee noonu euh, nañu ñaan pour que yàlla dogal mu nekk euh, benn benn benn benn problème boo xamante ni ñàkk bakkan xaju ci bu ko defee mu mën a dellu siwaat ñu mën ko fekkee ay ay trouble mentaux la wala yeneen i xeeti jàngoro waaw ñu mën ko fexe ba ba loolu yëpp mën a a deñ ba mu dellu loolu moom mooy nuancé rek suñuy propos comme ni ñu leen wax sànq. mais Bachir ah, mhm. fi nekk bariwul parce que ñoo xam ne ñaar kese fi nekk. si si waaw mais xam nga. Euh, loolu constat boobu nga def abu euh, presque moom mooy bu lu logique bi parce que euh, nit bu daanoo li ñu war a xalaat ñun ñëpp mooy évacuer ko le plus rapidement mais bu ñu gisee moo am ay lenteur rek c'est parce que am na lu ñuy xaar loolu ñuy xaar comme ni nga ko waxee police pour constat bi mais aussi peut-être ambulance pour mën ko évacuer parce que instant bii nii oto bi nga xam ne moo fi taxawoon auto sapor bi du ambulance oto bi ab benn pick up la mooy comme seen pick up yooyu ñuy yor ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñooy euh, nekk ci ci ci ci géej yeeg fleuve yeeg yooyu. Mhm. nga xam ne ñoom ñooy intervenir ci ci ci ci ci lépp lu jëm ci infraction ci wàllu ndox wala lépp lu jëm tey ci wàllu. Euh, ay jafe-jafe ci ci ci géej wala ci dex wala ci ndox mu taa genre yooyu ñoom ñoo intervenir seen pick-up boobu moom lañ fi gis donc ambulance ñëwagut tey pour mën a évacuer ki nga xamante ni moom moo fi nekk peut-être ñaar yooyu moom moo nekk li nga xam ne moom la ñuy xaar mais aussi boo xoolee actuellement fi zone bi nekkee da ngay gis ne euh, accéder fii day xaw a jafe parce que ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari rond-point moom moo seq euh, technopole bi muy rond-point Lobat Fall bi nga xam ne léegi moom la ñu def autopont croisement Cambérène bi nga xamante ne ni ñaar yooyu heure bii day xat rawatina tey di samedi day xat de trop tey bu dee Lobat Fall bi boobu dafa nekk benn secteur boo xamante ne nii ra ak lamb ji nga xam ne am na arène nationale donc day nekk benn point boo xam ne pour nga continuer ko ba mën a ñëw day xaw metti parce que foofu day xat de trop tey boo xoolee croisement Cambérène bi aussi ak weekend bi foofu aussi day xaw a day xaw a xat gis nañu ligne bi nga xam ne ni oto yi def nañ ko donc ambulance wala auto police pour mu ñëw dina xaw a jafe tuuti waa dina xaw a euh, yéex peut-être mën na bokk ci li nga xamante ni moom moo waral yéexaay bi. léegi gis nañ waaye ba léegi mu ngi jël téléphone di woote la ci waaj yi parce que xamaguñu lan la tamit mm-hmm. parce que sax ba léegi mu ngi taxaw ak sapeur yi. Euh, mu ngi woote téléphone tamit ñuy xool lu bëree bëri bëri xëy na tamit amal lu mu ci loo xamante ne xam na ko ci. waaw waaw waaw parce que mu ngi woote di expliquer peut-être ci témoins yi la bokk ñi nga xam ne nii fekk nañ mbir mi euh, mën naa mu bokk ci ñi nga ne ñoom ñoo fekkee affaire yi bi muy xew gis nga ñu ngi koy wëlbati mais il pare que non euh, ñu ngi koy wëlbati. mu ngi ñu ngi muy yëngal yaram yi. Basirou. waaw kii dafa mel ni dese na bakkan de. si si si. mu mel ni na bakkan dafa mel ni na bakkan waaw kii dese na bakkan. mel ni dese na bakkan bakkan mu ngi noonu. mais yàlla na bu ko yàlla bu fekkee fanam des na yàlla yàlla yokk fanam mu mu dund. allahumma amiin waaw yàlla dund parce que tamit si société bi la bokk boo xoolee góor la. Mhm. waaw góor la. dëgg la mu ngi noonu donc euh, alhamdulilah rabil alamin moom la ñuy wax rek parce que bi ñuy soog a ñëw aussi euh, dañoo jàppoon ne nit ku ñàkk bakkanam la ak circonstances yi ñu ko fekkee donc comme que amuñu aperçu aperçu bu net ci la xew fale seen rek la ñuy am ak euh, njort ak yenn ci témoignages yi nga xam ne dañ koy am sur place mais d'après daal li ñuy jot a gis nii suñu bët may ñu ko wane na ne waa ji mu ngi dund ba léegi. ñàkk ñàkkagul bakkanam la xew nag ba mu tëdd foofu noonu ña fa nekk rek actuellement ñoom ñoo ko xam. mais temps bi fii tamit bu fekkee tamit dafa sonn dafa lottu. Mhm. ah gars war nañu mën a bi sori fii tout près fii ci ginnaaw ci waaw mhm, waaw war nañoo gaaw def dëgg la dëgg la war nañoo gaaw def intervention yi. Euh, ba xam exactement en tout cas ful bi mu ngi gën a bari nit ñi ñu ngi gën di ñëw ndax zone bi képp ku romb gis nit ñi taxaw. di yërndu euh, il faut nga ñëw xool ba xam affaire bi lan lan moo xew donc euh, loolu daal mooy li nga xam ne ni tey moo xew fii ci technopole ñu ngi xaar élément sapeur pompier ñu woote ba xam ban euh, lan la ñuy xaar ak ana lan moom moo waral woote bu bari bi 되는데. doon kii xaru finalement euh, le gars il est décédé mu ngi noonu élément sapeur pompier di ko génne donc euh, lii lii lii wax ji nag mooy ndax dafa xar wala déet en tout cas finalement mu jéem ñàkk bakkanam ñëw nañ ba jël ko moom lañ teg ci placard bi noonu di ko génne euh, attente bi xawoon na yàgg ñu ngi doon xaar la gendarmerie doon xaar aussi les éléments de la police doon xaar aussi. ambulance bi ñëw finalement ñëw nañ ba jógi noonu di ko génne euh, malheureusement mujjee na ñàkk bakkanam mu nekk lu triste nag waaw waaw waaw naa ñàkk bakkanam parce que nii ñu ko nii ñu ko mbuusee nii euh, loolu dundatul parce que kuy dund kenn du ko kenn du ko defee ne euh, muy lu triste nag di lu triste di lu yéeme loo xamante ne nii vraiment situation yu méttee métti la yu difficile la si waaw xaar bi yàgg na xaar bi yàgg na parce que xam nga lu mel nii aussi c'est imprévu euh, des fois day jékki rek dal bu boobaa aussi doo xam ci yan circonstance la leen fekk donc loolu aussi lu ci am solo la gis nga ñu ngi doon di ko évacuer ñu ngi di ko évacuer euh, pour dugal ko ci oto sàpp